non dinaa la xamal leen man amul kenn doomu aadama bu ma mën a teg pression ci sama digganteeg Balla Gaye barki Serigne tubaa Mbacke ndax man Baboy Pikine laa juddoo fa laa màggee waaye sama digganteeg Balla Gaye amul kenn ku mën a teg pression parce que man du ma ragal du ma lu ma bëgg wax nit ki dama la koy wax Balla Gaye li ma boole moom li si gën a bëri Serigne Touba la ndaxte nit gor rek mu mën a doon. sport sport rek maag Balla Gaye bëri nanu daan na ma loolu yëpp am na ci mais yàlla dogal na ay mbir yu bari sama digganteeg moom boobu sax moom nekkagul champion mu ngi nekk ay tout tànk des fois ñu daja fenn ma ne ko rak yow mii de war nga mën a doon champion ëllëg war nga mën a teral sa baay ndax champion nga ay yu bari yu bari ba ci sëñ Modou Habib Mbacké si man Balla Gaye ni sëñ Mourabi Mbacke bëggee Balla Gaye ak man bëri na sëñ Mourabi Moussane ñëw ñëpp xam na ni géejo fii lay ne Cambérène 2 ci booru géej gi Omar dana ñëw sax di ko ziar te nit nit rek nga nit ki nga xam ne yëg na la bëgg la boole la sa biir nit ñi di ñu ngi wax lu ne. mais loolu la fois. yëngalu ma sax xam nga tax yëngalu ma xam nga nit ñi bu nuy wax. ngir leneen di wax ay yàq der di wax diw lii la ko toppee lii la toppee man sëñ Tuubaa damaa taral man amul benn mbër muy takk ngemb ma ñee la yoralu ma bànk bor sàcc ma fenu ma li ma am sama fit sama jom moo ma ko may ak ñaanu wayjur ak sama sëriñ Mouhamadul Abim Mbakke man dama xuus fa ba muy mettee jàll dem fu sama nawle am rek fu baax am naa foofu fu baax aw ma dara lu mën a rëy sama bët xama lan moo mën a sa bët sëñ Tuubaa rek billahi wallahi amul lenn lu mën a rëy sama bët ci àdduna ku sëriñ tubaa ak sama sëriñ Mouhamadou bi Mbacke boo yoroon milliard ma yor sama dërëm sama dërëm yi laa gën a fonk ngir sëñ Bamba ndax xam naa ni man ni ma bëggee sëñ tubaa xoolal ba ma bàyyi lam ba léegi maa ngi sant yanteeg sëriñ tubaa lu ma bëgg a def si àdduna sëriñ Tuubaa dana ma si jàppale moom rek moo leen boole boo xoolee Omar xam ne daf bëgg sëñ Touba des fois dañuy toog di waxtaan sëñ Touba sax day tuur ndox day jooy jooy bu bari parce que si xol bi la xam nga maa moom danoo bokk lu bari même bu nu toogee sax di waxtaan da xam ne ñun ñaar ba parce que fu gaa yi teg àdduna nit ñi ñun ñu foofu àdduna ñun doon koo woyofal te pourtant lu nit ñi def de mën na noon koo def ñuy jaay yëpp mën nañ ko ndax sëñ Touba seetaanuñu waaye nag foo nu fekk rek as ndongo sëñ Tuubaa bi na ñuy doon te na ñuy doon ba faw ba yem a xiyam ndax man sëñ Tuubaa rek laa yaakaar parce que démb rek àjjuma ba nu demee julli ji Tuubaa loolu daf ma sedd sama xol ba nu demee ku ni teeruñu ndax lan sëñ Tuubaa moo tax tey mbër muy taxaw fii senegal si tele wala ci rajo ngay wax jërëjëf Serigne Touba ci Balla Beye numéro 2 nga ko dégg muy Baboye maa njëkk a toog ci tele di wax Serigne Touba di sol mbubb mi nga xam ne photo Serigne Touba nañ siy def di ko solo sama benn tuut tànk muy ñëw ci làmb ji loolu dafa dëggu ci man te loonu laay deewee bëgg Serigne Touba ci laay deewee lu nit am na jël man daal xam lu may ñaan bu ma kenn ëppale Serigne tubaa mais daal nañ la bàyyi Balla Gaye daal sa rakk la. noo Balla sama rakk la luy nit ñi di xalaat yëpp wala luy nit ñi di bëgg wax yëpp wala luy ñuy bëgg sama diggante du am parce que amul tax. danoo ànd rek te yàlla tax ak yeneen beeg Serigne Touba mu jox ma cër fonk ma yëg ma te nit ku ne amoo lu dul bés ak sa njaboot bu sama njaboot xewle moo fi njëkk bu amee sama bés moo ma fi njëkk amul keneen nag kenn ku ma amal problème barki Serigne Touba Mbacke li ma lay wax ni lu wér peng la.